jërëjëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média soir d' info lii nga xamante ni rédaction bu télévision Futur Média moo leen koy bis euh, moo leen koy dégtal ay bis bu ne ñu ñëw waxtaanee tey jii ak kii nga xamante ni mooy euh, Moussa Sissoko moom la ñu dalal bokk ci euh, nekk secrétaire général bu euh, syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux jafe-jafe yi nga xamante ne fi mu ne nii sénégalais yu bari ñu ngi koy dund léegi boobaak léegi mat na léegi ñaari at ci euh, wër ci ay papier extrait de naissance ak papier administratif en général jafe-jafe yooyu lu ko waral mooy agents municipaux yi fan yii yëpp wala at yi yëpp mën nañ ko jàppe noonu dañu nekk ci grève lu waral grève bu ni mel ba sénégalais yu bari fi mu ne nii yëg nañ ko wutum extrait de dafa jafe rawatina yeneen këyit yoo xamante ne jafe-jafe yi sénégalais yi di dundu ñu moo tax ñu teewal ñu dalal ki di Moussa Sissoko Moussa ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal. Euh, ñu ngi lay fay euh, Modou. Mm. di nuyu le président du groupe. Euh, euh Futur Média mm-hmm. di nuyu personnel bi yëpp. Mm-hmm. di la ziar di la sant. Mm-hmm. di wax rek ne si tout à l'heure si sa présentation da nga fàtte benn mbir. beneen mbir la. je suis le secrétaire général. Uh-huh. de la fédération générale des travailleurs du Sénégal la uh-huh. FGTS. Ah. man maa wuutu Sidia Ndiaye. à la tête de la centrale syndicale. Uh-huh. loolu c'était une précision de taille. beneen bi nga wax tamit boobu dëgg la je suis le secrétaire général. du syndicat unique et démocratique. des travailleurs municipaux du Sénégal. voilà loolu ñu euh, dalal la li ko waral. mooy ni ma yi bëgg a yàgg nag ñaari at. Mhm. xam nga li nga gis nga grève bi. Mhm. sénégalais yëpp gis nañ ne mi ngi bëgg yàgg. Mhm. parce que ñaari at si grève yàgg na lool. et je pense que pour ñu xam. nu administration di doxe ak ñu xam nu syndicat di doxee ñaari atu grève dafa bare. parce que souvent dañuy wax ne. xam nga ay liggéeykat bu ñuy dem grève dañuy yëglu mhm. c'est-à-dire maanaam def préavis de grève mhm. préavis de grève bi da ngay def da les griefs qui te poussent à partir en grève ndi mhm. wax sa naqar léegi nag il appartient à l'autorité wala autour de la table de négociation da ngay anticiper sur le conflit mais malheureusement loolu moo naxasay Sénégal nos autorités je suis désolé de le dire comme ça dañ dul faratal la discussion anticiper sur les conflits loolu moo ñu waral tey grève bu bari bi yëpp. Mhm. mais euh, lan mooy lan mooy seen mbébét bi d'abord. xam nga suñu mbébét bi. Mhm. lu yomb la. Mhm. xam nga moo tax dafay baax aussi. ni clarifier sénégalais yi lu tax travers collectivités territoriales yi. di laaj seen ak ak yelef gis nga gouvernement du Sénégal. sous le magistère de. président Macky Sall de Boun Abdallah Dionne. en premier ministre yàlla na ko yàlla yërëm. dafa commanditoon une étude sur la demande des des des organisations syndicales parce que dañu remarqué woon ne dafa bare woon ay disparités sur le traitement salarial des travailleurs en général mais ñun liggéeykatu gox goxaan si askan bi la ñu bokk ñu amoon si ay protocole d' accord yoo xam ne signé woon nañ ko entre ak gouvernement bi mu amoon ñetti mbir yoo xam ne moo ñu si moo ñu si concerné woon benn bi moo doon lan moo doon la la val le relevement du point indiciaire nga xam ne tey point indiciaire Sénégal mi ngi dem à 56 point 43 ñun rek Sénégal travers collectivité territoriales yi ñoom lañ la ñuy fay jusqu'à présent à 51 point 43 beneen bi mooy ni ne il faut valoriser les salaires revaloriser revalorisation des salaires par hiérarchie ni fey ko agent état bi fàtte agent collectivité territoriale te mu am benn disposition du code des collectivités territoriales article vingt neuf. bu wax ne. mu ne bépp peyor bu ñu jagleel liggéeykatu état bi dañ ko war a jagleel d'office liggéeykatu collectivité territoriale waaw ñun ñuy xeex pendant plus de deux ans. ni réclamer suñu droit. xam nga lan moo gën a metti ci mbir mi. mais dañu toog di pendant que ñun ñuy grève mais dafa mel ni ñun dañu bugg a suufeel wala dañu bugg a ñàkkal fayda. woo ay maire ak ay adjoint au maire yëkkal yokkal leen seen ay peyor. ñu toog waxatuñ dara. ñu yëkkati ay percepteurs municipaux. ay receveurs percepteurs. Hmm. yokkal leen seen salaire. Hmm. loolu nag. ngeen gën a mer mais loolu moo irrité travailleurs yi te loolu moom kooku mbéjum kanam bopp boroom rek koy fajal boppam. kon hmm. nag si askan bi la bokk ñun on va réclamer ce droit là te duñ dellu gannaaw. gis nga euh, dellu gannaaw sénégalais yi waaye déglu ma rek dañuy waxtaan Mamadou Ndiaye trop xam nga ñun si askan bi lañu ñu bokk. mais boo nekkee si askan. lu ñu cëralee yeneen nit yi nekk ci askan bi dañ la ko war a cëralee. Mhm. maa ngi dégg nga baal ma. Mhm. récemment benn kilifa. Mhm. boo xam ne vraiment man dama yaakaaroon ne amoon na beneen posture bu mu waroon taxaw. génn di attaquer les travailleurs non intersyndicales des travailleurs des collectivités territoriales. il nous a traité de tous les noms d'oiseaux. naan woy suñu grève bi c'est une grève illicite xamul sax luy grève illicite moom mu ne. ah du moom moo ne ñu moom euh, euh, moo yore affaire wu maanaam euh, kii duñ koy waxatee consommateurs yi. Mhm. waaw xanaa ñun bokkuñu si consommateurs yi ñun travers collectivité territoriale. Mhm. ñun ñooy début et fin développement de bu ñu joxul suñu cër ñun ñu laaj suñu cër. Mhm. te incha allah ñu jox suñu cër. mais fan la fan la laaj bi toll yéen kay. mais laaj bi laaj bi non eh, baal ma ñaari at. waaw boo leen ko defee ci grève sénégalais yëpp yëg nañ ko nag waaw ndax wax naa ko sànq mbirum wutum extrait de naissance yeeg hmm. jafe-jafe bu ci nekk duggee ci internet beeg ñu mel ñu ci bari sax xamuñu lan moo xew mais grève bi yëg nañ ko dañ la carrément chaque jour chaque jour ñi ngi naan eh, agents municipaux yi dañu grève hmm. mënuñu am suñu extrait de naissance yi école buy tijji xale yi dañuy nekk ci jafe-jafe yeneen ci ñoo xam dañuy mën a voyager wala ay leneen yoo xam ne ay kayit ay administra papier administratif ñu ñuy soxla ñu nekk ci ay jafe-jafe sénégalais yëg nañ ko bu baax gannaaw Euh, am nañu nguur gu bees am ngeen njiit am nañ njiit bu bees ci seen domaine muy euh, Bala Moussa Fofana daje ngeen ak moom mi nga xamante ni mooy euh, ministre urbanisme ak collectivité territoriale daje ngeen ak moom lan moo jukkee ci daj daje boobu ak lan ngeen nas ndax grève bi dina dina jeex ba fi mu ne ni Sénégalais yi mën a noyyi. xam nga ñun dañ dul verser aussi autoglorification. Mhm. mais maanaam grève kenn du ko ndamoo ñun ñu grève bi ah. Mhm. parce que ñun si askan bi la ñu bokk. Mhm. mais buñ la tooñee lenn rek ngay mun taxaw. mooy da ngay laajte sa ak ak mais euh, dañu di ja jàkkaarloo nag benn benn gouvernement boo xam ne moo fi nekkoon. Mhm. premier ministre wooñu yéen ñëpp Sénégal yéen ñëpp fekkee ngeen ko. Mhm. mu wooñu nee ñu dakkal leen seen grève pendant may may ngeen may ma diiru fukki fan ma réglé ko. muy Amadou Ba Amadou Ba. Mhm. mais lu mu def dafa dem yoonam bàyyi ñu dem di def campagne électorale. waaw mais bi. waaw dégg déglu ma rek campagne électorale la la mujjee. waaw il a rendu nag un très mauvais service. à son nouveau parce que xam lu tax. gars yi nee nañu ku ndóobin rey sa maam foo gis lu ñuul daw. ñun ñii euh, administration continuité la mhm. ñoom xam nañu lu xew si réew mi parce que du ñu ay étranger. Mhm. ils sont au fait. de tout ce qui se passe dans ce pays là tous les documents ont été ficelés dama lay wax rek continuité la continuité bi waaw continuité la ñoom mais dañu am benn direction bu tudd euh, la direction du euh, le centre national de la fonction publique locale et de la formation mm-hmm. ñooñu def nañu recensement mm-hmm. war nañu Sénégal yëpp def recensement ba pare livrer ay statistiques mm-hmm. ñun waxoon nañ leen dès le départ ñun intersyndical dañ leen ne paiement bi mu leen fayoon ñëpp mais commencé leen fay au moins am ngeen ay statistiques yu wane ne am na ay 4000 et quelques travailleurs yoo xam ne tey war nañu mun a fayeeku am na ñoo xam ne dañu nekk liste d'attente am na ñoo xam ne nangam nangam ñii war ngeen fay mais comment comme ko am ngeen ñoo xam ne mun ngeen leen fay tàmbale leen fay ñooñu parce que waxoon nañ leen ko ba pare nee leen nag am na ay communes ici au Sénégal les maires jëloon sur eux de payer ay communes Pikine Nord mm-hmm. ay yeneen au Sénégal qui ont commencé ñu xëy benn subatel receveur percepteur municipaux yooyu bloqué paiement yi mhm. waaw loolu nga yaakaar ne loolu dina indi jàmm si réew mhm. ay sénégalais di daan seen doole pendant des années di xeex pour seen droit ni bugg leen ko xañ ba pare may wax ay nit toog fële à la périphérie bugg leen bugg leen bugg leen taxé de de de mécréant ou bien de kii mais loolu bi ngeen bi ngeen dajeeg bi ngeen dajeeg ministre ah. bi ngeen dajeeg ministre bi lan ngeen waxtaanee ak lan ngeen tënk gis nga bu ñu dajeeg ministre bi mhm. moom bu mu jëkk def il a reconnu que li ñuy xeex ni c'est un droit légitime mmh. déjà c'est la première information mhm. xam nga bu ñoon wax leneen sax ñu mun a wax mais moom dafa ñëw reconnaître ne ñun lu ñuy ñaxtu ni mhm. c'est un droit légitime mhm. bu mu waxee loolu ba pare mu ne y a une commission qui va s'asseoir on va statuer sur le cas mais nun man gëmatuma affaire yi commission xam lu tax des commissions liggéey nañu ba pare mais moom kay bu buggee jàmm. na sukkandiku si commission parce que. comme ni ñu waxee léegi lan ngeen di xaar. ñun lu ñuy xaar. Mhm. mooy na na jël document yooyu ñu ko jox euh, euh, statistiques yooyu. ñu ko jox ne état continuité la. waaw ko état continuité la. Mhm. xam nga yaa yoo yaa yow mhm. yow nangu d'accord nga ak man si loolu. état continuité la. na jël document yooyu nga xam ne ay statistiques yoo xam ne livré nañ ko nañu commencé fay ñooñu. après léegi ñoo xam ne dañu war a compléter dossier ñii ne complété leen mais loolu rek la. bu ñu bëggee jàmm am daal xam nga lan la bu ñu fi nekk di tourner autour du pot ça ne sert à rien l'état est une continuité ils n'ont qu'à commencer à payer bu ñu ko defee. Hmm. mais jàmm ne ñooy. mais gis nga mais dañ koy dakkal mais bu ñu commencé fay à condition qu'il commence à payer mais s'il paye pas on va rien arrêter. Hmm. ah non fan la ñu jëm bi. ah fan la ñu jëm fan la ñu jëm. ñoom kay nga koy laaj. ñoom ñoo yore askan bi. non yéen ñi nga xam ne fi nii ñaari ñaari at wax nga ko yéen da ngeen bokk ci Sénégal ci sénégalais yi bokk ci ñi nga xamante ni ñooy dund ci jafe-jafe yi ñun ñëpp dund nañu ñu ngi dund jafe-jafe yi man dama koy dund keneen ak keneen ñi ci Sénégal seetaan yëpp ci mbirum wutum extrait de naissance yi fi mu ne nii est-ce que parfois tamit xalaat ngeen tuuti euh, ni ngeen ni nasaxalee wala mën nañ ko wax euh, loree tuuti ci Séné ci sénégalais yi. mais Maodo Ndiaye xanaa ñun bokkuñu ci askan bi. waaw waaw yow yow nu nga fi amee famille man noonu laa fi amee famille ak mhm. ñeneen mhm. ñun ci askan bi la ñu bokk. ñun aussi dañuy gis euh, euh, coono àdduna bi. Mhm. Euh, coût de la vie chère ñun daf ñuy dal ñun travers collectivité territoriale. Mhm. mais mënuñu fi yokkal ay ay ay liggéey yeneen liggéeykat comme ñun ba pare bëgg ñu teg sànni ñu à la à la mettre ñu à la périphérie. Mhm. ñun loolu duñ ko nangu parce que dañu bokk ci askan bi te lu ñuy laajte suñu droit la. bu ñu bëggee jàmm am nañu fay nit yi seen droit. gis loolu rek mooy solution bi. ay yeneen wax. yooyu yëpp ça ça ça ne fait que nous faire perdre du temps. Mm-hmm. on n'a qu'à nous payer bu ñu fayee jàmm ne mm-hmm. bu ñu bëggee jàmm loolu rek moo mun a nekk. Mm-hmm. nous sommes nag nous sommes ouverts au dialogue. Ah. parce que quand le ministre nous a appelé. Ah, non non man man mii di wax ak yow. je suis membre du haut conseil du dialogue social. Mm bien ce que je dis. nous sommes ouverts au dialogue mais dans la condition qu'on prenne en charge. les préoccupations des travers des collectivités territoriales et le plus rapidement possible. mais est-ce que gisul leen waroon leen may temps tuuti gouvernement bu yees. mais kay ma yëgal la dara ñëw non. Euh, comme que yi nga lay wax sànq yaa ngi doon wax gouvernement président Macky Sall Boun Abdallah Dionne ba ci euh, Amadou Ba jafe-jafe yi nga xam du bii nag jarul woon ngeen dalal ko tuuti ne ko ñun ñun kat dañ doon grève ñaari at mais danañ leen may ñaar juróom benn weer yoo xamante ni ngeen xool yëf yi bu baax balaa ñoo tàmbaliwaat mais fi mu dañuy delluwaat ci liggéey ba. Modou Ndiaye. Mhm. gis nga le président son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye mhm. ak euh, le premier ministre Ousmane Sonko mhm. yaafus taxul ñu egsi fu ñu nekk nii de mhm. dañu xeex ils ont lutté pour leurs droits nous on va lutter pour nos droits waaw man kay waaw waaw loolu waaw waaw gis nga ñoom xam nga bu ñu bu ñu yaafusoon lui il sera jamais président de la république moom bu yaafusoon il sera jamais premier ministre parce que ils ont été victimes

mais ñun tamit boo wooyee nit wax ko moom tamit dafa am droit de lu mhm. mu wax. waaw mais léegi nag na ay commission man commission. mais le plus rapidement. dañu liggéey mais est ce que gisuloo ne d' accord la mel ni d' accord ci commission yi mu wax. non xam ni nga waxee nii dafa mel ni keroog ba ngeen daj. ni ngeen dajee non xam nga man. Euh, moi je ne crois pas parce que je crois à la continuité de l' les travaux ont été déjà faits. il faut pas réinventer la roue. on n'a pas de temps. gis urgence fu mu nekk nii ñun les urgences. commence par les travers des collectivités territoriales. parce que ñun rek la dossier nekk dans la poubelle. ñoo am na ñeneen ñu nekk deux ans. bah non mais du loolu mais tu sais très bien <laughs> moi je suis persuadé d'une chose et c'est man c'est ma conviction. Mm-hmm. je sais que le le, pré, le président de la République là. Mhm. monsieur euh, son excellence Bassirou Diomaye Faye. Mhm. ak notre premier ministre Ousmane Sonko. Mhm. ils vont régler ce problème là. et le plus rapidement possible. d'ailleurs gis naa ci parce que ñoom bëgguñu injustice. dëgg la d'ailleurs gis naa ci ils n'aiment pas l'injustice. gis naa ci communiqué bi. waaw ministre bi dafa mel ni promettre na leen que ni dina jéem a fexe ngeen mën a toog ak premier ministre. boo mais man je suis persuadé que suñu toogee ak Ousmane Sonko. il va régler notre problème te bés bu ñu jàkkaarloo moom. Ah, dinaa ko ne amoo non non non non non xam le ministre de tutelle. c'est vrai qu'il nous a appelé uh-huh. d'ailleurs maa ngi saluer au passage uh-huh. pour la convivialité ak lépp uh-huh. c'est un homme bien Bala Moussa Fofana waaw un homme bien très sympathique il nous a accueillis on a discuté c'est un homme euh, vraiment euh, d'une grande aisance relationnelle kooku on ne saurait le nier mais le président Ousmane Sonko je l'interpelle à partir de votre antenne pour lui dire que moom xam na luy injustice ne réparer injustice bi liggéeykat yi gox goxaan yi sonn nañu on les a trop fragilisés dañ leen marginalisé ñu ngi leen di bëgg a toroxal si réew moo xam ne ñoom tey ñoom nekk au début et à la fin du développement il faut qu'on pense à ces gens-là ñu respecté leen. bu ma bu ma bu jàngatee li nga wax mooy il faut ñu régler seen problème ngir ngeen mën a dakkal grève. mais mais mais bu ñu réglé wu suñu problème la la la la ñuy def leneen lu loolu mais mais il faut qu'on règle nos problèmes. Mm-hmm. nous nous avons des problèmes. Mm-hmm. nous faisons partie intégrante de ce pays là. Mm-hmm. dañu fi am famille am fi njaboot di fay location di fay loyer coût de la vie chère lu muy dalee yeneen travailleurs yi ñu yokkal noonu la ñuy dalee nañu régler suñu problème. dégg naa tey ci ci ci suba ci euh, suñu micro yeneen confrère kenn ci yéen. mu ne euh, yëf yi bu dakkul bu yemulee fii solution amul di ngeen dem ba euh, daal di bañ a joxe permis d'inhumation yi maanaam kayit gi ngay joxe pour bu nit génnee àddina ñu mën ko denc. non xam nga man ak très honnêtement c'est m man. wax façon yooyu man bëgguma ko sax di déglu quoi. Hmm. ça ne pas. parce que je pense que ak lu ñu munti xeex-xeex il faut qu'on humanise nos rapports ñun ay ah. nit lañu quoi. Hmm. du ñu ay bàyyi ma les travers des collectivités territoriales ay intellectuels lañu. Hmm. te seen biir ay ñu am xel ñoo fa nekk. ay tëj ay cimetière wala nit dee nga bàyyi ko si morgue bi ñun mosoo ñoo wax loolu. ñun lu ñu wax mooy nañ ñu fay. suñu suñu suñu xaalis. sinon ngeen wéyal grève. voilà loolu rek la di wax grève bi tamit kayit yooyu ci la bokk. waaw non non mais grève bi non xam nga dans toute chose il faut ah, que parce que da nga meroog nit rek war nga dem jël jaasi ñëw fekk këram rek gor ko. ah non non non non y a des mm-hmm. choses qu'il faut pas dire. voilà euh, dañu doon dalal kii di euh, Moussa Sissoko bokk ci euh, nekk secrétaire général bu syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux li ñu doon waxtaanee nag mooy jafe-jafe yi nga xamante ni sénégalais yi fan yii yëpp ñu ngi ko wala at yii yëpp ndax léegi mat na ñaari at ñu ngi koy dund mhm. ci mbirum wutum kayit bi ndaxte ko laaj dañ naan la euh, dañu nekk ci grève boo demee ci mairie yeeg fi nga xamante ne fa la ñuy jaar pour am ay papier administratif li ko waraloon nag euh, wax nañ ko léegi seen euh, mbébét seen jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund seen ay koppar yoo xam ne ñu ngi koy laaj nguur gi boobaak lii mat na ñaari at léegi ba tey ba tey solution amul waaye nguur gu bees gi bi mu ñëwee ministre bu yees bi nga xam ne ci ñoom la ñu sosu euh, recevoir nañ leen muy euh, Balla Moussa Fofana dalal leen dalal seen xel waaye tamit euh, njort yi tamit dina fexe wut beneen audience boo xam ne dinañ ca fas yéene jàkkaarloog premier ministre Ousmane Sonko ngir indi ay solution waaye yëf yi fa la tool ñaata jox ndax jox nañ leen diir que ni du yàgg dara solution war a mën a am. non euh, bu ñu euh, bu ñu jógee ci rencontre bi. en tout mhm. cas ci biir rencontre bi du moins. Mhm. Euh, le ministre monsieur euh, Bala Moussa Fofana. ak mhm. ses collaborateurs y a en présence. du directeur du centre national de la fonction publique locale de la formation. Mm -hmm. mon frère et ami Abdou Khadr Ndiaye que je salue. nous avait promis que si dans les délais. les plus courts. le premier ministre Ousmane Sonko dina fexe ba mu recevoir ñu. kon mën nañu jot solution. waaw waaw mais je pense que am ngeen yaakaar non je suis optimiste. Ah. moi je suis optimiste man je suis persuadé que le jour bu ñu toogee parce que moom mii boppam. en prélude même des élections moom wax na si. wax na ci ah wax affaire grève bi. bi dafa yàgg ñëpp ko yëg. at dafa bare. et population yi ni ngi sonn. sonn nañ bu baax moo tax moo a ngi doon xalaat. population bi tamit non mais ñun si population man sax su ma bu soxlaa extrait damay am problème pour am ko. mais yow mi ci liggéey. man mi ci liggéey. waaw loolu laa la wax moo tax ma ne ñi comme que yéen ci boppam gisoon ngeen jafe-jafe yi nga xam ne population bi ñu ngi ko doon dund. mais ñun ko gën a gis parce que xam la ñu. ay mhm. doomu aadama la ñu. Mhm. et puis xanaa am nañu sensibilité nag. Mhm. suñu yaram. man tu t'imagines du ma gisee doomu nit ñëw di ma di ma demander un service que je dois lui rendre bu ma ko mënul. c'est parce que tout simplement pour des faits de grève du ma neex. mais loolu du neex kenn. Mhm. même liggéeykat yi gis nga les travailleurs là qui sont là les mhm. travailleurs des de des collectivités territoriales. Ouais. c'est des gens intègres. Mhm. gis lu ñuy liggéey lu ñuy daj. vraiment réew mi war na njukkal quoi. vraiment il mérite plus que ça lu ñu leen di def di leen bugg a pendant deux ans si loo xam ne c'est rien du tout. parce que quand on a calculé même l'incidence financière il paraît que c'est trop mais ni ngi jàll xaalis bi di ko jox ay ko ñaata la toll. mais d'après les premières estimations ils ont dit que c'était quelque chose comme 2 milliards xam nga loolu dara. ci réew mi toll 2 milliards bari waaw non dafa du dara loolu ma ne xam nga lan la uh-huh. ay milliards jàmm moo gën lépp loo gis loo xam ne mais attends mais tu t'imagines les préjudices qu'on fait porter aux aux Sénégalais uh-huh. ay ay xale yu war a dem jàngi ay xale yu war a dem en Europe pour leurs études ñi leen di xañ ay papiers mais ça c'est des préjudices. Mhm. il faut mais bari na ci ñu leen doon teg baaraamu tuuma aussi naan leen euh, seen grève bi tegoo leen ko fenn. parce que da ngeen bëgg rek seen yëfi bopp ngeen daal maanaam daal seen euh, intérêt bopp rek ngeen jiital. mais xanaa ñooñu ay xanaa ñooñu ñu ay sénégalais mais wax loolu vraiment c'est méconnaître les gens ñun dama xamul ñun ban njëriñ la am pour di toroxal ay sénégalais comme ñun comme yëpp Sénégalais yëpp dañuy laajte suñu àq ak yelleef loolu rek la. Mhm. on a dee droits qu'on réclame où est le problème. jërëjëf euh, Moussa Sissoko ñu mu nekkoon kàddu yu mujj ñu bàyyi la nga tàggatoo ak yi di fàttali ni tey musa Sissoko la ñu dalaloon ñu waxtaanee euh, grève bi nga xam ni boobaak léegi mat na ñaari at ñii nga xamante ni ñooy agents municipaux yi ci euh, mbirum wutum kayit beeg jafe-jafe yi nga xam ñu ngi koy dund ay ay mën nañ léegi mat na ñaari at fan lañ ci toll daje nañoo ak ministre bu yees bi bi yor ci wàll wi ñëw waxtaan ak moom lu fa tukkee ci wàll wi yéy na ci ay indi na ci léegi ay leeral fas yéene nañ ci tamit fas yéene jàkkaarlook ñoom seen mbébét mooy jàkkaarloo premier ministre bi ngir yëf yi gën a mën a yemb waaye koppar gi mën a disponible. loolu rek ngeen laaj. voilà bon ça le suma mot de la fin. Mhm. je voulais l'adresser tout d'abord à son excellence le président de la république monsieur Bassirou Diomaye le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, mmh. pour leur dire que depuis plus de deux ans, les travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal, Nigel Latesen Akhak Yelef, qu'on refuse systématiquement de leur octroyer. te teguñu ko fenn comme que ñoom la yàlla teg tey ñu ñëw si boppu réew mi. te ñoom dañu ne dañuy ñëw pour régler les injustices. et les inéquités. dans ce pays là ñu ngi leen di ñaan. ni régler le problème des travailleurs des collectivités territoriales askan bi sonn na askan yaa ngi rué vers les brancards pour dem di wuti ay papier ñi leen koy xañ ñi dem dans nos postes et de santé pour wut lu ñu fajoo mënuñu ko te ñooñu l' état du Sénégal moo war a régler seen problème ñuy wax ñoom nañu jublu si mbir bi le plus rapidement possible. Mhm. ni jox ces braves travailleurs la seen ak mhm. ak yelleef. Mhm. man je pense que loolu bu ñu ko defee jàmm ne ñooy. parce que ñun kenn gënuñu bugg réew mi. les travailleurs des collectivités territoriales ci askan bi la ñu bokk. te bugguñu lor benn nit. vraiment nañu régler loolu vraiment c'est le message que je voulais en tout cas lancer. aux autorités de notre pays. espérons que dina am issue heureuse incha allah. ngeen dakkal ko Sénégalais yi mën a delluwaat ci mën a am ay kayit jaajëfal la euh, Moussa Cissokho jaajëfal euh, téléspectateurs yi nes tuut awa si ñaatee ngay ci ginnaaw di wàcc euh, xibaaru mbarax yi ñëw fas yéene ko. Euh, yaatal ngi mu ànd ceeg rédaction bu télévision Futur Média Pierre da Silva mi nekkoon ci xarala yi di ko jaajëfal Moussa gërëm naa la jaajëf. ñu ngi lay ziar bu baax nga nuyul ma suma doom kooku suma doom la Awa Signaté. Awa Signaté mi ngi c'est ma fille moo fas yéene euh, farañ fàccee xibaar yi. ci kanam d'accord merci beaucoup. jaajëf mbokk téléspectateurs yi jaajëf à bientôt merci.